sama khas lekk laa jël Amina yow nan nga ma yebee bo boy dug sama nek do feug ay eh, xol Amina bo dugate sama nek te feugo na ñaf sanda yaa ngi may ay tanta ba soo dama saaga xanaa sama yaay dafa eh dimbale ma nga naa eh, eh lan nga fi def. li ngi may def buñ ko don def sa dom xamal est-ce dina la neex. Amina duma sa morom lan nga fi wut. sama khas ndekki la jël damay jangi kanam seytane bi. xam ça? sa yow la xanaa da ngaa football yi sa papa noqati la Pa Moussa. qu'est-ce qu'il y a. non ça va ça va je vais bien. oui ça va. yaa ngi bien? oui ça va

Voilà, on ne partage plus la même chose. Tons, c'est vrai que nous avons un problème de avec son papa. Comme Dieu me dehors, c'est juste ça. C'est pas comme le Dorian Oui. À cause de mon tante. Parce que je suis venu marché pour mon dougal. Là, il m'a pour le monde. parce que je me pour le monde. yow yaa nugg yaa dem marché. tons kër gi fii chaque jour maay dem marché daf ma jox mille ba ma dem dugal ko ma jël 1400 yi jënd ci jën weccee su def ma jënd ko yu sew sewaan mu des 150 ma ñëw jox ko ko mu fël sama loxo bi boole ma seen mbéj ba pare ne bu ma lekkat ci biir kër gi ñooy déet waaye sama papa ñëw mu convaincre sama papa sama papa fekk ma si néeg bi aussi dóoraat na. tontu lii kese la mais bëgg naa aussi nga benn affaire kan ma la wax nii yow rek yaa ko yëgagum. ma réglé ko tey. Tons li ma la wax xam naa si bar bu baax lu ma la wax lu ma xam naa ko bu baax parce que man sama rakk Amina li ñuy dund ci kër gi rek doy na sëkk bis boo ko waxee sama papa sama tante dina si jot.

Il y les eu de 17 heures tu te rends compte de ça. Euh, man dama comprendre tu parles de pas mais non? maintenant. don bien sûr. tu di jël ay affaire un ak vandalisme attends je te pose juste question Donc, wala dañ la non mais tantam mon tu as bien dit tantam nga la tu te tu te rappelles de papa Moussa bi ñu ngénte parti tu yow taxaw na papa Moussa men la wax sama ok je vais être crash. donc tu ngi yaa ngi bi koy def tu nga koy tu aucune chance parce que tout simplement fait genre Tu bi kenn la c'est la seule personne qui a cru en toi.

papa Moussa j'ai pas besoin de me tax expliquer pour environnement ambiance je trouvé triste je lui ai posé la question moi wax ma booy delloosil sa xel a ces choses yow yaa ko war a bu nit ñi diri papa Moussa ci day tu te rends compte de tout ce qu'on a subi ci bi es décédé kan moo fi nekkoon et là une personne vient te dire tout simplement que papa Moussa dafa tu dis mille francs tu as cru. booy xam là moi ça problème yow Samba sa tàng xol bi ce fugg beeg sa arme bi quoi il faut arrêter. tàng a euh, ngeen arrêté c'est parce que je dis la vérité De dama dugg ma tàng xol.

ça je pense que ni en aucun cas waruma woon dóor papa Moussa waruma woon jël sama loxo di ko teg ci kawam quoi soo amee lenn lu may rëccu sama àddina rek loolu la franchement yow dix mille francs yi nga ne fan nga ko tegoon exactement est-ce xoolaat nga bu baax ci néeg bi. waaw bi kon gëmoo li ma la waaw man boo ma la bëggoon nga wax yow laay waxal yan photo laay dindi nga ni. damay xanaa da dof ah wala tu de moi yow. wala man respecté woo ma quoi xanaa photo yi bu génnee lal bi aussi day génn dootoo tëdd ci oublié que ne lal bii ñuy tëdd nii lal na fi mbay la yow sa lal moo nekk fële moo nekkoon fële yow ci ose venir naan ma ay photo yi dafa war a génn gis nga bés boo juumee bës bu la seytaane moomee rek ba nga ne da ngay génnee benn bagage fii nii keroog laa suur àddina ak alaaxira man sax xam naa ni photo yi photo souvenir la et que ci nga koy xoolee maa ngi jégal ah, man de Mari Mbàkke mi téléphone am bii eh. ay ay yow yow mii Jóob na moon naa la waa Marie noo def yaa ngi ci jàmm eh, eh, gëj nga maa gis kay temps yi maa ngi kër xadi maa ngi kër xadi ah di neex muy belli di lekk lu neex ay ginaar ak <laughs> yow de Marie Mbàkke li nga ci xamul sax mooy jëkkëri sis ko buy ñëw noo def xoolal mu indaaleel ma bong bong bu nooy boo xam ne man daal maa ngi ci jàmm fi mu toll nii Marie ว่าเดี๋ยวขึ้นขาดีด้านนี้ว่าเคยหยุบมั่งเลยวัดมั่งเลยวัดข้ามัวขาดีมั่งเลยวัดคำนาดมาสอละเนี่ยนายลูกครับเอ๊เอ๊ะที่จะบุญทุกข์ใจตัวกวักมาเลยครับไปครั nee na yaay man loo nga ne. sama xol bi mooy waaj a génn yaay. amaar day daal di génn. na fii lan moo tax ma bañ leen dama leen bañ ba su ma leen gisee dañ mel ni sama buuti ji laa gis. boo leen bañee war nga leen a bañ boo leen bañu war nga leen bañ. ko kan la ci sax ku góor kenn ku jigéen gi. yaa yaa gën xam ni du ndaw li la dëmm bi vampire bi. du ndaw kooku nga xam ne xel mi da koo wër dafa am xel am xel ba romb am xel kooku nga xam ne xel mi ci ndey ji yëpp a ngi ci moom ku nga xam ne boo ko joroon boo ko joxoon réew mi tey mu ngëb ko nii kooku ngay ñëw fii di ma wax xanaa xamoon ndey ji xel mu réy tax mu teel a dee waxuma la dara sax xale bi daa ñëw ne furaax sama bunt bi teg ko néegu ndeyam ba tey baa ubbi nga kaabaab gi dangaa waroon a ubbi kaabaab gi ba nelaw ci kawam ba mu xam ne ndeyam amatu fi néeg dee na ku dee looy doy néeg da doon wër si de ba xam yaa baayam du ngeen fa nekkee xel mi li ma lay wax ci xel maa rëy xel mi man moom ma si. lu xew a tiit naa ne ne tuuti. yaay nag moom bii paa moom nag daanu nga sa galaaj bi moom toj na. Cisco mooy photo yi ma la doon wax photo na fi may. pour mu dindi ko moom de laa ko wax mu énervé sama kaw mer. di ma yuux oh non sa yaay eh, sa gàllaaj bi toj na de toj man xam nga ne sama gàllaaj bi toj Cisco la gën a xam ne danaa wuti jiwaat gàllaaj naa maat samay tànk laaj danaa ko def lu raw li ma ko defoon te kat dinaa la wax leen ku dee moom xoolal jërul di sonn ay photo ku dee bu ci sax mer bu ci wax leen Cisco maa énervé woon de daa jar énervé jërul énervé de doom man xam nga ne lu danaa ko dàbbaliwaat ba mu saf te xam nga ne Cisco bëgguma mu xam li may def. ndax bu ko xamee sama nafa gi dara dootu ci nekk. ah yaa ko wax de. ah. bu mu ko yëg kan ci. rakkam ji bu ko fàttewaale. Hmm. xanaa waxoo Kya. Ah. Kya dee la gën a xam ne xoolal danaa dem wuti ji defar ko ci café di ko yëngal di ko yëngal di ko yëngal ba mu far nipp ñaw ko eh, man sama yaay laa bëgg de. dinaa defar sama yaay laa bëgg man waxuma loolu sax. loo waxati. bis bu ko defee ba kii bi dem ba mu éliminé xale yi laay bañu doon na Mouhamed rek doon. yaay Mouhamed day doon nga doon ma doon ñu doon. rek. sama yaay laa bëgg. waaye samay tànk. nu ma ko mën a ñame ak nu ma ko mën a def yow xam nga ne su ma ne laa dina xam nga ne ko mi li nga wax loolu lay def yow bàyyi ma mu jël xelam bi teg ko ci ku deekee li mu métti woon yëpp mujjee na maa neex yi yow yaay sama doom yow laa bëgg dangal bul wax dara yow doxal rek dem yow yowal kontaan na yow doxal rek dem man man dinaa def ba heure bii Cisco di ma xamal muy yàqu yàlla tere ma defoon kaani sa dam dama koy gën a yokk ah Cisco dina ma yàqal naa yalwaan ba heure bii muy këpp. waa minu Chew fan yi gisuma la bagage bees yi moo wàcce waay nag namu naa la lu bari bari bari non tënkee dama lay yónnee waa tënkee yow noo far. Xadi ku pel nday sa téléphone bi. lan moo xew yow. yow yow Xadi da dof. wala lan mo la dal yo xam di lañ la jox wala xar wala xaj ba nga yor sa yak heure bu la neex ngay dor kan mo la wax dama don dor papa musa man. wala wane nako gis nga eh papa Musa ak Amina samay jarbat lañ du man nangu ben imbécile di len toroxal. billah dóoruma ko. xam la la merde. man may sen yaay may sen nijaay bi sama ma génnee adina ñom ñaar ñi gannaaw yalla ci ñoom laay xool cofeel gi ma amoon ci sama mag kon du ma nangu imbécile jóge fu nekk ñëw di leen toroxal. billaahi dóoru ma leen. xam laa la wax waxul dëgg dëgg seytaane yi naan da ngay jooy. <laughs> xale ñoo ma bëggul waaye dóoru ko de. xale ñoo ma bëggul. <laughs> Eh, gis nga kanam gi nga gis tey defal attention xadi defal attention.